cheikh bi yow sëriñ saaliw ak moom kenn ma sa àndeet teral ko ab jaamam ànd cheikh ibrak sëñ bamba la may delloo abubakar usmaan omar alin yonen ba mësuñu dégg may yi teraanga siwul jëf ju weet baram weeta yi sëriñ saaliw nii la gaañi daaram be xayam ga muy toog nga ñëw ni moom moom ruuy saaliw bi nga ñëwul murit yi xamuñu woon jëmam ji bi mu la seexale yee yi sëriñ saaliwoo sëriñ Tuubaa fi danul jël waaju tekkiwul taal gaañi coo mu jëlal sëriñ saaliw yàlla ay mbiram moo weesoo askan a giir xamewul tëgg ki géer taarixub sëriñ Mahmoud Mbekere dul fay sëriñ Tuubaa ko taawam waa walaay ta u dewoon yërmandeem bu dee feeñ ah, moom du xàmme saw xetale ko tax jamono serigne salew waw jam sangam jam boromam jam bi jam buñu gorel ci mbiri dag nga bum salam alaykum adina salam alaykum senegal ma ngi nuyu rew bitim rew di nuyu fu nit meuna nek ci adina bi ma ngi lay share bu bax fa ab julit mën nek ci adina bi ma nga lay ndokkeel ci weer wi nga xamni moy mooy weeru koor di weeru ngëneel di weeru tawfiix may sante bu baax a baax baax a kullu murid Serigne Mountakha bashir di ñaanal mu yag fi téwér tay sante mboole sen khalifa general bu nek ci kër diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu kilifa rew mi maa ngi sant bu baax sama wasila mu tedd wi Serigne Cheikh mu Serigne saliw Mbacké ak mboole sen jabotu Serigne saliw gi nga xamni barki Dembo ndjay ci premier bisu wéru koor wi la recevoir ak waxtu wam ñu recevoir loli lepp di feddali dom gam ma waxon ne ma moom nga ci kër gi waye nga ci kër gi mboole seen fu génération Serigne Saliou mbake nek ci réew mi bitim réew mi àndoon nañu dem siari jiko yobul ko sunu addiyee ci bisu weeru kor wi nga xamni mo moo tombeer sang bu tedd bo bii nga xamni mo waral bis bi di bisu 17 avril Serigne Béthio jaamu Serigne Saliou mbake nokoy ñaanal momit sa borom yok ay ngeureumum yok ay cantam fofé mu ne ñu yag mise ci kaddom mo di wax 17 avril dana ko sante tay dana ko sante euleuk Serigne saliw ñun ñi nga xamni day am nañu tawfiq fekke ci mom lu bari xam nañ ni loolu la mësa xam xam nañ ni loolu la miis Serigne Béthio diggam ak Serigne saliw yaakarna luñu ci wax jaarat lay doon waye mom wax na lépp waaye nag ñak ndax mën naa ni Serigne Saliou yàgg naa jëflanteeg moom ci ay kàddu boobu mbooloo mi tollu nii mën naa ni mbooloo mi ginaaw ba ñi ci wàlli diggante 2004 bi nga xam ni ci la ngërëmul yàlla wàcc ci moom diggante boobu mbooloo mi wuy si ci laata mbooloo mi am na lu bari loo xam ni mag ña fekke woon ku ci mel ni jëriñ Ibou Kouaté ku ci mel ni Serigne Saliou Mbacke Gueule Tapée mii ndigal cuun ku ci mel ni jëwriñ Papa njaay ku ci mel ni sama waajur ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkoon ci Touba Maros ca daara yi sëñ Béthio ju njëkk ja ji fi jiitu ku ci mel ni jëwriñ Ali ñoo ñu nga xam ne yàgg nañoo fekkee sëriñ saali Saliou Mbacke yàgg yëkkati ay kàddu jëmee ci sëñ Béthio te boobu mbooloo mi yegsiwul fii mu yegsi te ñu mën cee wax lu bari te bis bii waral ko bis bii waral mbaa yàlla naa la mbaa yàlla koo bokkal kulli cuun ak bàmbi caam dootuma mbaa yàlla keneen ko àndut ak yow bis bi waral waa kër sëñ Béthio day seen dara génn ma bis bi waral defoo waxoo loo def maa la ko sax bakkan néew ci àdduna néew ci lépp sëriñ Tuubaa la bis bii waral Cheikh Béthio koo tinul yàlla jéggal ko bis bii waral sama diggante ak yow mi ngi mel ni ñaari ndabi ndox nga jël watu ndaa di tank ci li di soti ci ni mënu ci xam lu tuutee ni tok ndox yi wad ci diggante ñaari ndabi ndax lima ma def ci yow ku yalla sama borom xam ko bis bi waral mahrajan mahrajan borom xam-xam yi mënees na ci yaatu tek ci lu bari ndax moy lo dugg ba ñepp japp ni li kat mënatoo ci genn sa borom genn la ci lolou moy makhrajan bis bi waral serigne Saliou ne ko sa dundu gi yeb def naa ko muy mu shukri moy cant gu sax bis bi waral serigne Saliou ne ko def na guddik laylatul khadir. Gip di sa guddi lo dundati guddik laylatul khadir la sëriñ Saliou ko wax ci bur bis bi li ci daje te serigne Saliou Mbacke wax ko ko bari na waaye nag ci mujjé Andak mom te teewee ko Serigne Saliou mbake wax nu deg moy kep ku jébalooti ci yow dana am ngeureumul yalla Serigne Saliou nga ko wax xel kom ci daari daru salam 10 man naa tay buñ doon wax may yi nga xamni Serigne Saliou mbake may nako ko sëñ lol lañuy la wax mo ci gëna reey ndax kat ngeureumul yalla kuy top suñu borom lolou ngay sakku ku yalla mës a nga wacc ci kaw suuf fexe nu la jaam ñu toppee ba am sa ngërëm ndax ñi yàlla yónni ku am seen ngërëm am ngërëm sunu borom loolu rek moo nu wàcc ci kaw suuf wut ngërëmul sunu borom te yàlla wax ko it ku wàcc ci kaw suuf te amoo ngërëmam di nga rëccu lan nga doon def ci kaw suuf kon mën naa ne may yi sëriñ Saliou may sëñ Béthio dara gënu cee féete kaw ku jébbalu ci am ngërëmul yàlla bis bii waral ma fekkee sëriñ Saliou Mbàkke gi mujj ci ak xel ko mom nga xamni dañu ko def ba nopi serigne bi daal di koy yónnee ay xaal foofee ca jabel daan ne ko nak xaal yi dama bëgg na ci defaro, barkeelu ndax def na ci defaru bu yaq dotul tege lolu moy bat bi nga xamni japp jortuna ci sama xel mom la serigne saliw mujjé wax sëñ beccio ginaaw bi ne ko digal na la nga wax sa bokk sa talibé yi ñuy yi nañu fonk magal gi ak gàmmu gi njortu naa ni ginnaaw baat boobu baat bi sëriñ Saliou mujjee wax sëñ Béthio mooy baat boobu yi ma wax léegi ci xaal yi mooy def na ci defar gu yàq dootu tege kon ndax lii may wax 2000 sama juumul ci ci njëlbeenu 2007 gi la la Serigne Saliou wax mooy xel ko mu ngi mucc 2007 kon lii mën nañu koo seere te fekke ko waaye nag loolu diggam ak sëriñ saaliw la li tax bëgguma ci xuus mooy wax na ci lu bari moom li li ci ma doon leeral leeral na ko waaye nag ma ñëw nag sama diggante digganteeg moom te àdduna sépp xam ko ndax man bi may doon gone sama jur ku ne xam na ko diggam ak sëñ Béthio ndax sëñ Béthio waajur la ci man waaye maam la ci man ndax soxna Bambi Caam mii woy juram mooy sama bàjjanu ndey kon man sëñ Béthio cërub saayir daa jiitu ci man ci moom cërub sëriñ waaye nu boole lépp dëxëñ ko daal di koy topp topp ko toppinu taalibe akub sangam mu defal nu lu sang di defal jaamam waaye defal nu it lu sang mënta defal ab jaamam ndax dégg naa lu ne ci lu góor di dégg mën naa ne tey lépp lu mu dégg ci diggam ak sëriñ Saliou naam xanduma ko waaye dégg naa ci lu bari sama digg ak moom lépp lu ñuy taggee nit lépp lu ñuy soññee nit lépp lu ñuy ñaaxee nit lépp lu ñuy ndamalee nit sëriñ Béthio jaar na fa ak man passeport diplomate sëñ beccu moo ko tek sama loxo chaise u Nations Unies bi nga xamni ni bi nane Serigne Saliou mbacké Mbacke danaa la sante ba Nations Unies Serigne Saliou nako fuy foofu mu ne ko mooy wi aduna sepp di dajé ngir di wax luy doxal adina keroog bu fa sëñ beccu di dugg di sante Serigne Saliou man mi ma yëkëti won baat ba Cheikh beccu néna ko am lenen na nga jël bayinu Cheikh beccu Cheikh Saliou yëngal sonu ruuy man mi ma teewe keroog bi Africa Bambaataa di yeesal njëbbalam di dugg ci diine lislaam di rappeur américain bu mag bu ñëpp xam keroog ba muy dugg ci lislaam di jébbalu ci sëñ Béthio sëñ Béthio tuddee ko Serigne Saliou dégg ngeen ko ci woyoo xeet wu ne ñooy jébbalu njëkkee tuub doon jullit Africa Bambaataa yaa ko tuddee Serigne Saliou ndax boobu bi Africa Bambaataa di jébbalu la ma dee ci suuf ne ma sàllaaw de lépp lu xew ci tournée bi na ko bind looloo waral loolu dugg ci biir woy Serigne Béthio def fa jaloor wu ne ci biir Amérique ñu ànd ko ñu ànd France fu ne mu jaar fa man ci teraanga ak ci ngëneel ak i tawféex kon bis bii occasion la ci ma sant yàgg seereel àdduna sépp sant guma ko sant ndax man wax naa ko ba tàyyi bu dul cëriñ si sëñ Béthio sama maam la sama wayjur la ñoo bokk ngéwél lambeen gi nga xamni ni mënuma ko tuddee sax ak ngewel ndax Serigne Saliou soppina na ak ngewel ci mom bi ma ko ki yag na la ber ngir ya di jëmam ja ki defar na ak bok soppi ngewel anta gànnapaal sàmmut samud jere ba bama bama koy wax Serigne Saliou mbake dindina na ak ngewel ci mom ndax xam ngeen ni serigne beccu day kenn doonul ab geeram ku dul Serigne Saliou nu kenn ku dul serigne saaliw fofé lay waxé wayé mom sagal na askanu ngewel sagal sagal na luñu nan ak ngewel ndax motax ak ngewel siggi serigne saaliw bi mu ñëwé ci jamono bëgg a yeesal jamono ngewel, la dugg kon ak ngewel war nañu xam cër bi leen sunu borom jox kon ma ngi sante bu baax mu jaar ak man fune nak ci xeeti ndam ndax euh, bi bi ma bi ma sëñ Béthio di wax naan ma c'est la révélation de ne boobu gone laa ma ñëw ci cant gi fekk fi samay mag euh, maa ngi nuyu jëriñ Ibrahima Diagne maa ngi nuyu Babacar Aydara maa ngi nuyu Racine Diop ndax ñii ñooy mag ñi daan way waaye boobu way aaw moo xewoon ci cant gi moor kase waaye man bi may ñëw dama tombeek nag euh, sëriñ bi Sering Saaliwu mbake jox ko digal ngir mu wër adina ndax bobu kat serigne Saaliwu dako woné ko man kat dafa am way jur bari yi ñew ci man dima jima sendom joytu sen dom ni mel ta takat dañuy wuyo ni ci mourid gi lañu bokk serigne Saaliw ne ko bëgg nga wër rew mi nga mourid no muy mel loolu moo waraloon en 2003 serigne Béthio génnoon ne day wër ndakaru wër biir rew mi bitim rew maa amoon tawféex nag bokk ci boobu mooy première sortie sëñ Béthio mu commencé ko Thiès foofee ca jaxaaw laa njëkk a dégg c'est la révélation boobu génneeguma kaset kaset yi moo amoon waaye foo tourné ci dëkk bi ñoo ngi bind ci kaset yi Mohamed Niang c'est la révélation ndax moom ko tuddee woon tourné Thiès bi Mohamed Niang fa jaaree àddina sépp xam ko ñu jugee foofu ma def sama premier album yàlla dogal mu génn daal di barkeel wër Ya yalla dogal xet wi nga xamni tay mom la mom la mbolé sen ku nek ci atup señ beccu di woyé ci man mi la ko yàlla jaarale ndax waxna ko bi may ñëw di way bo ma woy aaw fi fek waaye xet wi nga xamni mom la ñuy woyee te ak teug yi té it may léral lén yit ci teug mi teug mi kat la taxone señ beccu indi ko mooy woote ba ko sëriñ Sali woote law ne ko demal nga wan nu am mu di mel te mu xam ne jamono toll na foo xam ne nit ñi boo leen bëggee woo foofu nga tëgg ñu ñëw nga wax leen lan mooy sëriñ Saliou ci loolu la ñu inspiré wu ba tax woy yii te mu nangul nu ko nag mu nangul nu ko Serigne Saliou Mbacke nangul ma ko man mii ndax wan na ma ko ci saayir wan na ma ko ci baatin te wallahi ku xool fii fi jógee ak fi mu toll war ngaa xam ni lii sëriñ Saliou nangu na ko te nangu gi daa jiitu lii ndax xam ngeen pecc mii sëñ Béthio di feccal Serigne saaliw lu yàgg la def na ko ci kanamu Serigne saaliw ba tàyyi Serigne Saliou di muuñ yéen de xam ngeen sëñ Béthio cofeel gi mu am ci Serigne saaliw lum doon def ci kanamu Serigne Saliou te Serigne Saliou àndu ci boo fa jógee dana ko baax waaye ba mu ko defee ci kanamu Serigne Saliou Serigne saaliw yamu ca da boole ay muuñ ba noppi yëkkati ay teraanga jox ko kon kooku ànd na la jëli ci Serigne nekkee. Soxna Mama Fall mii di sunu yaay maa ngi koy sant di ko nuyu sëriñ Serigne ci jëlee na ko fi di siyaari gi Serigne saaliw yéegal ko ci kaw gileemam ga ku fàttaliku ci yooyu jamono pochetu album sax defoon na ci gileem ga Soxna Mama Fall ñëw biir kër Serigne Saliou jumaay Touba ji di noddu muy woy Serigne Saliou Serigne Saliou nekk ci biir kees gi di dégg woy yi bi mu woyee ba daaneel la Serigne Saliou di soog a wax mën ngeen a dem julli ji kon kon kooku nangul yàgg naa nangu lii ñuy def noo ngi koy sant Babacar Aydara mi ma tudd léegi siyaare dañu siyaare dañu Serigne Saliou ci njaareem muy woy sëriñ Saliou Mbacke Serigne Saliou borom njàppandal Mbacke ñun jàll na Serigne Saliou nekk ci biir keesu Serigne Touba gi di ko dégg ba ba ñu ñëw ne ko euh, daaneel sa kàddu ndax sëriñ bi mi ngi ci ak aal kon way yi xam ngeen ni Serigne Saliou ko yeesal ci jamono waaye man nag ma ci cant gu ma ciy sant Serigne Saliou ndax dama cee gën a sëriñ sëñ Béthio dafa ma def may may may ma képp mboole seen kuy way ci xeet wii ñuy woyee ma féete mu féete ci lépp kaw loolu wax gi ma koy wax jubluwuma ci lu dul sant sëriñ Saliou Mbacke mi ma ko def ndax euh, sëriñ Saliou daa yeesal jamono way yi nga xam ni moom lañ moom la mag ñi daan way ku ci mel ni sëriñ Moussa Ka sëriñ bay Jaxate nga xamni ñoy suñu sunu ci way Serigne Touba ñoñu tek ci aw yoon nañu ko daan waye bobu fofu la jamono tollu waye nii ñi waye Serigne saliw tay fi la jamono tollu Serigne saliw xam gi mu xam jamono mo waral ba mu jamono serigne becho ba muy doon tout tank di jébbalu ci mom mënon nako jangulon alcorane mënon nako dugulon ci ay daara waye xam jamono ak xam ndawi jamono ak fi jamono jëm mo waral mu jangilo ko ay tubab ba serigne Béthio jaar ci garat yi mu jaar yépp ba tey mu mën a dugg ci université yi mën a dugg fu ne wan lan moo di ak murit loolu Serigne Saliou xam ngi mu xam jamono moo ko waral xam ngeen ni sëñ Béthio jàngul alxuraan daan na ko wax sax alxuraan benn baat la ci xam muy waaw nuroo gi mu nuroo na fa kon kooku xam ngeen ni Serigne Saliou Mbacke def na ci moom lu bokk takk li nit ñi foog ndax kat mës naa ñëw ni ko. woykat yi diine yi dañoo am lu ñuy waajal te kat dañ ma cee boole bi ma ñëwee di ko wax dana ma yow doo woykatu diine yow woykatu sëriñ saaliw nga loolu nag laaj aw déggin wu sori ndax mënees na cee tekkee ni diine kat mooy li ñëpp bokk waaye baat baatin ñëpp bokk na ko moom foofu lay waxee ci sañ-sañ bi sëriñ Tuubaa di am la mu am te di ko defal ku ko soob nga xam ni nit ñi daawuñu ko jàng mooy di sëriñ bi di wax ku ma topp ma defal la xam-xam boo xam ne nekkul ci ay feggu foofee la ma yóbbu ci way foofee la ma yóbbu ci xam-xam sëriñ Béthio moo ma jàngal lan moo di ak way sëriñ Béthio moo ma jàngal nu ñuy woyee sëriñ Saliou dëgg la dañuy wax ni way te yàlla jagleen leen ko askanu ngéwél bu ñu tuddee way ñëpp dem ci ñoom xel yëpp dem ci ngéwél waaye li may wax te yàgg koo wax te wax ko ci woy wi ak ngéwél taxul may woy dogo faali mayu may way xeet wi yàlla may ñuy way kenn melul ni lii may way kap xasan bu séyri ñii seex musaa ka raw nay riim géej gi ñépp naa ne way yaa nuur ca biir may feey daj naa fekk bu yàgg ber ya mbaalu mool dajul xor ya jàngu may xaroon bayaan ñépp a nangu yaaraw ñaan tax nga mbàkke tey kuy way ñépp foog ni maa lay way ngir ku ne ngi jug di roy wii wayin barkeel maa yay ndax li tax maa ne wii wayin barkeel maa yay mooy loolu ma doon wax ci nii ku ne di woyee Serigne Saliou Mbacke tey ci man mii la ko Serigne Saliou jaarale ndax ba ma tuddee na ma révélation xam ngeen di révélation mooy ku lu yees ndax boobu xeet wii ñuy woyee tey ba ba ba nga mën a dégg woy ba koo mën a dégg muy woy ci moderne mën nga koo mën ngaa déglu woy moomeñ ñang ca wet ga woy xeetu woyin woowu ci man mii la ko Serigne Saliou Mbacke jaarale ci jamono maa ko maa ko xewal ci jamono loolu nag jubluwuma ci lu dul sant ci Serigne Saliou Mbacke mi ko dogal ci man ba tey sama rakk yeeg ku ne mën caa jaar di woy Serigne Saliou Mbacke kon bu ma toogee fii gannaaw suba mën naa wax ci lima ma sëñ Béthio defal bokk na ci teraanga ju ma koy sante moom de xam ngeen ni lu mu mësaan a am ci événement moomeen ñang rek la ci wóolu loolu dama loolu fu ma toog dama ko koy sante woolu nañ ma bataay ci salle de jeu woolu nañ ma sama kër ak woolu nañ ma fu ci gan gu gam gan gu bette gu muy am mu ne kenn doyu ko ci kudul Moomeen Ñaŋ keroog bi ko président Macky Sall di seet si fii ci Mermoz keroog man nii la woolu nga xam ne lu mu masaan a am ci kilifa man lay woolu ngir maa ko doy ci woy Serigne Saliou Mbacke sëñ Béthio fu ne woyloo na ma fa Serigne Saliou Mbacke mos naa fàttaliku fii ci unité 10 mës wai way way way wu yes ni ngi ci rangu ziar bi nit ñangi ziar di joxe koppar yi di jébbalu may way ba mu yag waye man sama jëmi bop sax man limay wai way ni man lamu mu dégg moom ba tax mu juk ba keroog ci waxi waxi nit buñ ko doon wax dañ naan daa naroon a daanu da mbolo mi ñew juk ñen ñew téye bi muy juk di tepp baatu garaamu mbubb bi sax daa dellu ci ginnaaw ngeen xam ni kooku comme kon la muy dégg ci ay woy ak fa muy déggee ak la muy dégg la ñuy wax man mii di woy sax xaw ma ko loolu di wane rek jàngal gim jàngal way yi man li may fàttaliku ci moom mooy woy musuma koo bind te am fit woy ko lu dul damaa jàkkaaroog moom ndax moom rek moo mos moo moo moo moo mosaan a dalal sama xel ci way su ma mosaan a bind way tànk woyu ma ko ci kanamam ba mu validé woyu du génn ndax xam-xam bi muy wóor ni bu ko validé way wi dem na ndax xam-xam bi ñu am ba doon ko woyee moom moo ñu ko daan jàngal kon man bu ma mosaan a bind way balaa woy wee génn damay dem ci moom woy ko ba noppi su validé rek woy wi daal di génn loolu bokk na ci lu may fàttaliku sama digg ak moom bokk na ci lu may fàttaliku ci man de bokk naa ci woykat wu ma sa way mu taxaw ci digg baas may way mu may aawu loolu ay jëf la yoo xam ni dama koy fàttaliku sama digg ak moom sëñ Béthio way naa fii ci Mermoz mu digal mboole seen fu taalibe nekk nee na ñu def rang ñëw bégal ma jox ma ay koppar keroog fu nit nekk ci àddina rang nga ñëw mën naa ne cant ga lépp ci rangi joxe koppar lañ ko def ngir sama jëmm ji su ma limee damay juum su ma limee du dab lam ma defal ngir xel mënta jàpp lépp waaye man mii ñi fekke njabootu bopam gi ak ñi fekke xam nañ ni lima señ sëñ defal ci xéeti teranga jaar way kat ah duma né amul de waaye bu amé yit du du du du bari deug la eh, fu ne jaar na way kat ndax mom teranga rek la xam waye man de fi señ Béthio jaar ak man ci way loolu lerna na sëñ Béthio moom ma njëkk def international nii ma mel te Serigne Saliou Mbacké dogal ko nga xam du samay pexe du pexe loxo kenn ku dul loxob sëriñ Saliou ndax bi may de nekk tout tànk nekk ci këram di woyantu te gisuma ko sax nag mu ne ci mbaar mi wérd nit fette suma ne ma naa noppi ndax sëriñ bi day wérd ma noppi bi ñu noppee sëriñ bi da ko woo wooluñu daan na ko sàllaaw de buy yëkkateeti na nga ko bàyyi ndax bis dana ñëw dana yëkkate fañ ko dul tere kon kooku dogal na ci man way sëriñ Saliou Mbacke moo def ci man way jabet ak jabet kon man day bu ma yeboo am naa ci sëriñ Saliou mbakke lu nit dootul amati ba yomal xiyaam kon sant naa sëriñ Saliou Mbacke ci boole gim ma booleeg sëñ Béthio ba tax tey àddina sépp naw moo mel ñang wormaal moo mel ñang wekk moo mel ngir doxinam ci yoon wii li yoonu murit di rey rëy rëy rëy xam ngeen ni Serigne Saliou Mbacke dimbali na ma ba lépp lu ñuy jëf jëmee ci Serigne Touba dana fexe ba ma bokk ci ñay feeñ ñay fesal liggéeyub sëriñ bi te loolu yëpp maa ngi ko amee ci keppaaram ji ndax kat xam ngeen ni sëriñ Touba xam moo koy way xam ngeen ni Serigne Touba am mbind koy way te mbind moom sëriñ bi defal na ma ko. jallore yi fexew xew yépp muy jinan jinaan di lum meuna don Serigne Touba fexena ba lañu wara wax waxna ko ca to lolou di ay dogalam duma ci dara man mi sering Serigne salim mbake jokkar bi def ma may woykatu bu yoonu mourid lolou nak man dama ko xamal sama bop xaaruma ci kuma ci def kuma ci defal xaaruma ci kuma ci geureum dama ci liggeel Serigne salim mbake ta xamna ni Serigne mo may liggeelo maa sante Serigne salim mbake ma ngi sant aduna sepp bis bi nga xamni nak moy bisu 17 avril di bis bo xamni fu mbole sen fu ko nek ci aduna bi ma nga lay te di am mbégte ci bis bi nga xamni tay bu cianta ko mané siggi bu ko mané xam serigne Saliou mbake bis bi moko waral ma nga ci profito di nuyu njabotu sëñ bejo geet di sant nak serigne Saliou mbake ndigal cuun mi nga xamni mo def taxaway bu rafet bi jëme ko ci Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Mbacké ñoo bett nak ndax Serigne Saliou Mbacké moko wax ne ko do yàqu te doo yàqule te kenn mënu la yaqal Serigne Saliou xam gi mu xam lepp ba ne ko Serigne Touba la nangulé lu masta nangulé kenn loli mo waral bi sëñ Béthio defee sekkaram bi Serigne Saliou ndigal jaar ci yoon wi mu jaar loolu yëpp di feddali nangul ko ko sëriñ Saliou Mbacke nangul xam ngeen ni bool bol bool boobu bi muy wax te sëriñ bi boole woon ko sëriñ Mountakha bashir mii loolu mo moo feeñ firnde ju bari leer na tey te ki te sëriñ Saliou ndigal cuun mii def na ci jëf ju rafet sëñ Saal noo ngi lay ñaanal yoon wii nga xam ni sa wajur wu tedd wa teg na la ci te lépp mu wax ko di ay ndigal di ay cant yu mu yeesal te ñu fekke ko ñoo ngi ñaan yenn wi woyof ci barkeb sëriñ Saliou sëñ Saliou ñoo ngi lay ñaanal fi nga bëgg liggéey bi yegg fa yal na kawe sa njort te it rafet nañ ci njor ndax lu sëñ Muntaxa dugal loxoom sëriñ Cheikh mu sëñ Saliou dugal loxoom xam nañ ni dana yegg niw yoon may gërëm nag boole seen fu soppee mën a nekk ci àddina bi di top moment ñang tadi ko bege ma di jox rendez-vous nak ci bir koor gi dinañ and ak yeen fi ci sama chaîne YouTube bis bu né am nañu yéné wala ñaari ayu bis bu né ñu ñew tok faram faccé len way yi nga xamni ni lañuy way Serigne saliw te it mu melni ni yi nga xamni mom lañu nampé ci serigne bi té wala diko wax bitel bu né lamuy xéñ bi di xéñ ñu bëgg la kubéer gi di xeeñ ñu fexe ñépp xeeñtu ci ba jariñu ci loolu moo tax nuy waxee nii nuy waxee ndax sëriñ Saliou Mbacke xam ngeen ni fa mu newoon foofu rek la yàlla newoon mu ne su koo jegee nag ndax xam ngeen ni yàlla ak doomu aadama bi dañoo luumaate waaye la ma wax ci biteel ba kubéer ba rek def na ci ñun loolu moo waral léeg-léeg ñu wax wax ji xaw xóot ba ñenn ci nit ñi duñu mën a dégg fa ñuy waxee loolu moo waral maa ngi woo képp ku nekk ci àddina bi ma ngeen ñu topp ci sunu seen YouTube te abone te ànd ak ñun te xam ni lu jar free lu jar leeral ci woy yi danañ ko leeral danañ def ci weeru koor bi ñaari ayu bu ne danañ ànd ak danañ fa bàyyi ay numéro dana am woote dana ànd ak yéen ci commentaire yi ku commentaire danaa dugg boo laajee danaa la tontu dinaa ànd ak yéen danaa waxtaan ak yéen mu ngeen ko bëggee danaa ko ànd ak yéen yéen soppe yi jërë jëf maa ngi ñaanal Serigne Cheikh mu Serigne Saliou Mbacke mu yàgg fi lool ci ànd ak wér jërë jëf merci.